Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce au Tout-Puissant. Et je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Je remercie le Khalif général des Mourides. Parce que ce qui s'est passé avant-hier à la mosquée de Massalikul Jinan explique ce dénouement heureux. Je remercie aussi le président de la République qui avait promis de le libérer et qui l'a fait. J'appelle à un Sénégal apaisé. Ça, ce qui est arrivé ces deux jours, je pense que ça va créer un climat d'apaisement. Alors, euh, je remercie donc tous ceux qui ont soutenu Khalifa Ababa Karsal. Nous prions. Et ce dénouement heureux qu'on a eu découle, moi, à mon avis, c'est ce que je pense, découle de cette intermédiation du Khalif général des Mourides. Parce que depuis lors, les gens, les gens ont prié, ont demandé, ont demandé la libération du maire. Alors, euh, ce qui est arrivé aujourd'hui, vraiment, et ça tombe avec le jour de mon élection. J'ai été élu le 29 septembre. خليفه اللي بيريس 29 سبتمبر الحمد لله رب العالمين سانت يالا رك سانت يالا بو باخ باخ باخ سانت خليفه جنرال دي سانت بريزيدان دو لا ريبوبليك لي لا ندون خار يالا ماي نانكو الحمد لله رب العالمين يالا جام ياغ جي ريو خليفه خليفه خليفه salaamaaleykum mbokki internet yu Dakar instant ñu leen nuyu di leen jaajëfal ni ngeen ko gisee ci image euh, mu mel ni kook di Khalifa Ababacar Sall moom la ñu libéré tey gannaaw bi nga xamee ne xalif général des Mourides jaar na fi jubale kook nga diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall muy diggante baay ak doom tey ñu gis ni xalifa Sall libéré nañ ko moo génn tey war a fanaan ci ay mbokkam noonu ngeen ko gisee ci image yi seen nga mbooloo mi yëpp génn ci talib muy góor di jigéen mag ak ndaw noonu ngeen gisee gaa yaa ngi noonu ci kaw tali bi madame le maire madame mooy dem noonu ci Khalifa Sall ma nga dem ci ma nga jëm ci oto ba ma nga jëm ci oto ba gaa yi nga téye waaye ma nga jëm ci oto ba Khalifa ngi noonu ci kanam oto bi saxam Wardini mooy dugg noonu ci oto bi dugg na ci oto bi Khalifa Sall ngi noonu ngeen seen ci kanam oto bi mu def tout blanc mu ngi noonu Khalifa Sall ngeen seen noonu mu def tout blanc ci oto bi saxam Wardini yëg na ci ginnaaw yëg na ci ginnaaw moom mi nga xam ne moo wuutu mag euh, Khalifa Sall ci maire yu Ndakaaru mu ngi noonu seen nga noonu seen nga noonu ñu ngi noonu ña ngay saafonte ñoom ñaar ci biir oto bi ña ngay saafonte ci biir bi ñoom ñaar gaa ngi ñëw ñu ngi ñëw seen nga noonu ñu ñëwee seen nga noonu Khalifa noonu ci biir oto bi moo def tout blanc noonu def koopati bu weex bi gannaaw ñetti at bi mu ko tëjee ci kaso beeg léegi tey xalifa ñëw na ma ngay saafonteeg nit ña ndeysaan maire baa ngay jooy di daw maire baa ngay jooy di dem ndeysaan ñu ngi fii ci mbeddu Medina bi ñu ngi ci mbeddu Medina bi. moom ñu nag xalifa dee rek barke Serigne Babacar Sy loolu rek xalifa moom dafa am muñ na ko nag te ñaanul grâce da koo muñ toog xaar ba yàlla génnee ko tey kon sant yàlla li yëpp sant yàlla. xalifa moo ko jaral. parce que ma président ma suñu président maa ko jëlaat dañuy egg tàgg ak ba egg moom ba këram ñu ko gërëm ñun. di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp ñu jàpp ci affaire bi ñu ngi gërëm kilifa yi kilifa aada yi Sénégal askanu Sénégal waa Europe yaa Ami Diop ñoom Cheikh Tidiane Sall ñëpp ñu ngi leen di gërëm Baye Cheikh la from Medina Baye Cheikh from sant yàlla ah sant yàlla xalifa aw biir Médina tey sunu ndam la sunu ndam la président xalifa président de la république 2024 incha allah noonu lay demee quoi. lépp Serigne Touba la Seexul Xadim nañ ko kennal Sénégal nañ kennal Serigne Touba bu ñu ko kennalee rek jàmm am nañ ko kennal Seex Serigne Mountakha Bassirou ñaan na fi yàgg te wér ne ko ñëpp ñaanal Sénégal nañ ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér lii lépp mooma xalifa la ñu wax xalifa waaw. lu dul yàlla neen waaw. di sentir tey. ma lu ñu sentir tey yàlla rek ko xam. lu dul xool nee nañ yàlla du nit mais surtout sen ñaan mag ñi jóg fajar lan sen tapi julli ñaanal Khalifa Sall ñi ko xam ak ñi ko xamul bari nañu ñooñu ñep Khalifa Sall amel na leen jukkel defe na ni war nañu sant yàlla jullu ci sang yi sant bu baax Cheikh murtada Bassirou ci defam ju mag yi ndax biñu wax mbirum juma masalukal jinan ak jaar-jaar yi mané sama waji de bokk na ci nga xamni ñoo jëk taxaw def liggéey bu mag ci masalukal jinan

élève ses amis. Khalifa Sall aura enduré cette épreuve avec beaucoup de dignité et de foi et de croyance. mais moi, ñu gën bolo, ñu gën a ndax yene ak pas-pasu Khalifa Sall moy réew mi jëm ci kanam moy am ci mi justice nek fi bañe a tëddee njaaxaanaay am kumba am day ak kumba amul day, moy yoon dox ci mi même bu ñu parti politique.

ambition bi lan lay doon bu mooy xeex rek gore ba ba ba ba àll mu nekk Cheikh Gueye euh, kenn ñi nga xam ne jege ñaar Khalifa Sall la. yaay booy nga ne. waaye yow eh xol sedd na guy waay sunu xol yee sedd waaye jaajëf waaye jërëjëf eh, yàlla sunu borom xalifa waaye ci kanam ci kanam. xalifa ku ragal na daw. ku ñama ñanga toog xaaf mu ngi ñëw dal seen kaw. waaw tey lan ngeen di yegg gannaaw bi Khalifa Sall génnee ci kaso bi. mbég mbég te mu xam ne amul fu mu yem parce que gore na ñu ay gor lañ gore na te muñ ka muñ nattu yàlla bi ñu nit ñu muñ nattu yàlla ba yàlla ñëw tey kon mënuñ si am lu dul fierté te xam na li si kanam moo daax lii di ñëw si kanam moo daax on va se battre le combat continue. je vous le jure. nga fàttali ñu bi yow la kat. man la madame la maire Binta Gueye laa Lyon. Adja Binta Gueye laa Lyon. mu nekk Adja Binta Gueye laa Lyon. wallaay dem ba jeex rek ak xalifa rek. dëkk bi ñëpp génn nañ góor jigéen mag ak ndaw ñëpp génn nañ ngir teertu Khalifa Sall gannaaw ñetti at mi nekk ci kaso bi tey mu am liberté fas yéenee fanaan ji këram soxna ne. tëj ubbi tëj tëj ubbi. tëj tëj ubbi. Xalifa la ñu gëm mooy suñu président metti woon na mais jeex na yàlla lu mu jeexal mu jeex mais fii Xalifa moo fi ne Xalifa la ñu wax mooy suñu président metti na onkuwul umul di woor chaque jour nag Xalifa rek la ñu wax yàgg-yàgg doon président. ñaanu waxul may leen ma sonn naa kenn dégg ko mu ne damaa jabet wala damaa feebar kon na yàlla na ko yàlla may mu nekk président fi ci bàkk sëñ Fallou. tëj ubbi. tëj tëj ubbi maanaam. tëj ubbi. Ah. tëj na ko ubbi na ko gracier. dara top ko si dara top ko si xamoo ne na bu ko dugale ci kassa bi tam da koy génne Khalifa ndayam dafa liggéey bo mu ko dugale ba légui nekku ci jam del xool léegi la ñoo ngi fi di sant yalla bu wéré wéré wér ndax ñepp xam nañ réew mi fi mu toll ñoo ngi ci dialogue national dama ne dialogue bi gën si ngelaw gi Serigne Bamba moko waral kon dañ ko koy santé bu wér Serigne taxa Mbacké yalla fi yàgg ta wér garaaw nak ah Khalifa Babacar Sall moom mi ki fi xaar ndax ñëpp xam nañ ne adduna loo toogul xaari ko doo ko fekk sunu waa ji jaay na am na ngor am jom am fula ba lii fekk ko fi te jërëjëf Serigne Touba rek jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf Serigne Touba Serigne Touba rek la ñun ñoo jëlee ci biir quoi vraiment mais Khalifa bi ngi ko jëlee ci biir ñun bi ñu ci biir avant mu monsieur dossier pour ñu bi ci oto bi maanaam da xeewal ba sonu gaan vraiment tuur xeewal tuur xeewal ba war vraiment ñu do tiit ci bom lu waral lu waral jooy yooyu tur xewal maanaam affaire bi mbétti dañuy ànd ak mbétteem ndax mbooloo mi muy dégg ci biti maanaam gisagut gaa yi ci biti sax mais mbooloo mi bu dégg xam na ne maanaam gaa ngi koy xaar quoi moom maanaam bëgg na bi ko xaar dafa jooy ba maanaam ñun ñoo ko mujj jàpp doo ko a moo tax ñu gracier ko tey maanaam Seexul Xadim rek tax ñu gracier ko kenn maanaam yàlla suñu borom moo ko jaarale suñu bamba ñu gracier ko maanaam dama cee bëgg am ci fierté kontaan ci loolu vraiment ndax xalifa maanaam da ko meññee ba am jàmm ñaan na ko mu bañ sëñ Sidi Matar ñaan na ko mu bañ sëñ Serigne euh, sëñ Mansour radiyallahu anhu ñaan na ko mu bañ kon tey dialogue national bi gën si dialogue national dañ koy sant Serigne Touba. tey lan ngay sentir. li may sentir mënu ko expliquer barke xalifa Malick xaw ma ko ndax bañ ma ne xalifa génn na lu ma xamoon lu ne damaa jóg rek daw sama waa sax xamuñu fu ma jaar ndax rek kontaan bis bi moom du bis bu may fàtte mukk ci àdduna kontaan naa daal ni mu génn mel nii bu ñuy tëjati nañ ko seet kii yaayam ba muy xëy ba jéggi xëy yaayam tëddul woon di nelaw dafa xëy sa fajar guddee wàcc nag xalifa mii ku ànd ak moom tey bég nga ndax onkul bindiwul ñu ànd ak moom si fierté ak dignité alhamdulilah jërëjëf ah ndeysaan gis nga xalifaa ngi noonu di tàllal loxo gaay seen mu ngi noonu ci biir oto seen nga ko noonu mu ngi reetaan tey tàllal gaay loxo dégg nga xale yi waaw neel Macky Sall la volonté et le désir sont rendez-vous ce dimanche waxal ma nga bobu wa dimanche Khalifa nek une demande sociale n'a jamais été aussi forte au Sénégal waaw. wa batay ni ngeen ko gis ci image euh, gannaaw bi déparé ñu ngi fi ci mbedd fasi manam bo jëlé deux fois deux fois fasi falan fa lañ toll nii dégg nga ligay way ya yo Khalifa ñewna nga batay tey lañ koy waxe batay xalifa ba mu génnee ba léegi sa loxo bi mu ngi ci gémmiñ gi mu dar loxo bi mu ngi ci gémmiñ gi dar seen nga ko noonu mu ngi noonu ci oto bi maanaam ba tey mën na ni day mel ni ful wi ko teeru da koo jaaxal ndax daw na yaram dégg nga ni ko waa ji waxee sànq nee na laata moo signé kayit yi bi mu déggee li koy xaar ci biti daa tur ay rangooñam nee naa leen doon ngeen séenee ci biir ah, madame la maire Saham Wardini madame la maire Saham Wardini moo nekk noonu ci ginnaaw moo xalifa seen nga xalifa ngay ree xalifa nga ree tey tàllal loxo paas mu ngi nii jubal si Colobane jubal si ci Massalikul Jinaan fii may waxee yow ñu ngi ci rond-point Colobane bi war a jaar maison du parti boori maison du parti euh, jóge fa dem Massalikul Jinaan seen nga noonu ful baa ngi noonu di ñëw mbooloo maa ngi noonu xalifa Sall seen nga noonu mbooloo mi daw di ñëw seen nga noonu Il n'y a pas eu de négociation secrète. On n'a pas fait de demande de gaz. Et il n'y a pas eu de négociation aussi occulte c'était l'heure de le libérer, on l'a libéré. Point. Voilà, on est resté sur les principes de départ. Depuis le départ, on a dit qu'il faut que Khalifa garde sa dignité, il garde son honneur, il garde son être fier Alors, je voudrais juste préciser deux choses. Je pense que depuis le départ, Khalifa Sall a tenu à être endurant. Il a tenu à garder sa dignité. Elle a tenu à garder son honneur. Il s'est passé beaucoup de choses au tribunal, beaucoup de choses autour de lui. Il n'a jamais penché, il n'en a même pas parlé. Donc, ce besoin de garder cet honneur et cette dignité, je pense que nous tous, on l'a aidé à ce que ce soit préservé. Et dans la même logique, je vous le dis, je vous le répète, il n'y a pas eu de négociation secrète, il n'y a pas eu de négociation occulte et il n'y a pas eu de demande de grâce venant de Khalifa Sall. C'était un point important pour nous et je pense que du début à la fin, on l'a fait. Lundi, j'ai vu Khalifa Sal, il m'a dit que psychologiquement, il se prépare à faire 5 ans en prison. Aujourd'hui, il me disait qu'il se prépare à faire 5 ans à la prison. Donc quand on en est à ce niveau-là, que la décision soit prise, je pense que c'est le contexte et je pense que c'est ces populations-là qui en ont fait une demande qui a fait réagir le président de la République.

ni koy sunu borom santaane donc du début à la fin foofu lañ tolloo. Euh, ngeen koy gisee ci image yi bi nga xam ne ñoo Massalikul Jinaan kooku de El Hadj Mbacke yu fay génn saafonteeg moom euh, ñu am ay kàddu yu waxante mu dugaat El Hadj Mbacke yu fay daal di wàññeeku dugaat ci biir jumaa ji. kon ñu bàyyi leen ci image yi ngeen xool.